Eh, di jéggalu bu baax a baax a baax ci gëj a eh, dugg bi gëj a fàttalante suñu bopp ak fàttali leen mu mel na rek nañ eh, xamoon a def pause tuuti waaye yoraale woon macha allah xamoon na ci tuuti rek macha allah daal macha allah moo tax ñu nga ñëw dégg mais maa ngi leen di nuyu di leen ziara fu nit nekk di ma déglu rek nuyu naa la ziara naa la baal naa la ak di la wax baal ma. di kon ne di ñaan yàlla yàlla fi yàlla jëlee bi feebar ku ne fa nekk yàlla yàlla defal la li gën ci yow waaye loolu de yaakaar naa ne mooy jàmm ji nga xamante ne toujours moom laay wax moom la yàlla woote mu def ko ci julli di ko fàttali doomu aadama donte ne am na turam jàmm jooju muy woote macha allah gis booy sëlmal si jullil jàmm jooju ngay wuyu ngay wax booy nuyoo loolu lañ la digal. même julli néew boo ci salmal sax jàmm jooju bokk indiwul salmal agoo kon maa ngi leen koy ñaanal di ñaanal ñi si diaspora bi yal na yàlla defal leen jàmm foofu ñu ne ci mission yi yal na yàlla indiwaat leen ak yàlla may ñu nawet bu barkeel bu bëri ndox lool waaye mu ànd ak jàmm waaye jiw yal na ko yàlla saxal eh, mu mën koo lekk macha allah eh, ku ne fa nga nekk delluwaat ci sa liggéey te fekk feebar bi moo taxoon e mu gàllankoor ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na nga delluwaat foofu am fa jàmm macha allah ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom kër na yàlla yombal ko amul soxna ñu amul njaboot ñu amul liggéey ñi jàng ñu diplôme bàyyiwuñu kenn macha allah ñu feebar génn àdduna eh, ñi jàng. macha allah ñuy tukkee ci kaw ak si suuf yëpp ñu ngi leen di bi yàlla na yàlla génne leen foofu ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh, di ñaanal tout tànk yi yàlla na yàlla sa aar leen sàmm leen eh, yàlla may leen tarbiyatu diine mooy yaru diine macha allah bu ñu màgg ñu mën a màggaaleeg moom ñu yoree réew mi macha allah eh, ñu mën a. yor yor bu baax macha allah di nuyu kilifa diine yëpp di jaal ñi fi génn ñëpp àdduna yàlla yàlla yërëm leen ci ay kilifa ci mujj ndeysaan macha allah eh, Pape Malick si xalifa Thiénaba bi eh, macha allah ñu ne ci macha allah eh, nga xamante ne mooy place liggéeykaay yi nekkoon ak ñun génn àdduna yàlla yàlla yërëm leen xaral leen yoon àjjana ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa mbokk yi dañuy tàmbalawaat ak yéen rek incha allah waaye li ñu bëgg a tàmbale ak yéen mooy li nga xamante ne rek mooy di ko fàttaliku di fàttaliku di fàttali sama bopp di leen fàttali loolu mooy lan mooy li nga xamante ne jamono bu ñu nga xamante ne macha allah tëral nañ ñu ci kursu bàmmel balaa ñu ñuy dugal bàmmel dina wax ak ñun. bu fekkee daawuñu ko woon def di julli di julli e, dina wax ak ñun yow mi nga xamante ne yow la ñu tëral fii tey balaa ñu la fiy dugal yow yaa sàggane woon man mi julli bañ koo defal nga du ko def nu la neexee mooy wax foofu lu leen musal dina yàlla nga koy wax ci biir man bàmmeel dina wax ak yow nu mu lay wax ne la yow mi doy du loon julli de sàggane ko bañ koo def bañ ko jox ak xam yàlla boo dajee yërmande yàlla. nga gis ne julli googee ponk lislaam yi juróom la ñu waxoon nañ ko waaye moom mooy deuxième tomb di julli bu ñu tekki jee ëllëg encore suñu livre yi buñ ñu ko joxee julli la ñuy njëkk a xool di premier page bu baaxee lépp baax na bu bonee lépp la xool waaye bu e moom daal mooy leçon bu ñuy njëkk a joxe maanaam mel na rek kuy defee examen Eh, li ñuy njëkk a joxe bu toogee ca taabal ba wala bu jógee rek jekki rek julli lañ lay laaj na macha allah bu baaxee nag duñ la laaj dara mucc nga at mi nga waaye bu baaxul nag ci lañ la ne yow at mi moom ñu xool seen mbir yëpp nag kon kooku lu ñu war a jàng la lu ñu war a xam la bañ ko macha allah di ko sàggane ndax yàlla sax. mi ngi wax fa waylun lil musallina suratul maun mu nekk loo xamante ne tey jii waxul ki dul julli mais kii la wax kii julli la waxul ki dul julli mu ne kuy julli daal di sàggane jullam kooku daal dinaa ko dugal ci nga xamante ne moom mooy safara xur boobu nag e, mu wax macha allah mu nekk loo xamante ne ñëpp war nañ cee bàyyi xel ba xam niñ koy defee jàng ko bañ ko ne macha allah te ci nuñ ko mën a jàngee nañ ko jàng ngir ëllëg lay bañ a am dinañ ci ñëw nag incha allah waxaat ci niñ ko doon waxee ci commencement ba fin ba ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon defee ndax moo wax ne sallu kama raaytumuni usalli ndeke kay am na nuñ koy defee am na nu mu ko doon defee nee na day leen ko def comme ni ma koy defee mu ne julli le ni ngeen ma gisee ma daan jullee kon ndeke du nu la neex ngay jullee lu fu la neex ngay jublu loolu incha allah rabbi du lu la neex ngay wax ak lu la neex nga koy waxee ndax yooyu bokk na ci yoo xamante ne e, nit war na ko jàng loo jàng jàng jàng wala loo jàngati jàngati jàngati loo nekk naa guru naa guru loo nekk lettre loo mun a demee julli moom daal da nga ko war a jàng ba xam ko. waaw sagam li nga xam ne toujours moom ngay def kon nag loolu nit war na koo jàng ba xam ko muy man ak kenn na ci yam sama bo di leen fàttali incha allahu rabbi si kan dinañ ci dugg bu baax commencement ba fin ba ci commencement ba ca njàppala incha allah ci yëpp daal li nga xam ne noonu la ko nabi sallallahu doon defee xamal ne loonu lañ koy defee dañ ko sàggane loolu nag mbokk yi ah, ku ne war naa bàyyi xel loolu sagam da ngay daan julli génn àdduna yàlla ne kat kii man la si man la war a ñëw kon nag avant tout ah danaan jàpp danaan sangu set sang leen ko set ci biir sangu set amoon nañ jàpp jàppal leen ko mon nag mënutul jóg julli kon yéen ñii tey mu doon jullindoo ak yéen mu leer la kii jullit la yéen ñi tey julli la julli leen ko julli leen ko te amatoo njariñ su nga amatoo njariñ waaye comme da nga daan def moo tax nag ñu mën laa nag jullee loolu borom bi moo ko wax ca ya daan sol ndeysaan yére yi bees tàq yéen lay solal ginnaaw bañ na sangee sang farata googee macha allah e, fexe ba sa yére yi bañ a yàgg e, yàquñu suturaal la kon gis nga doomu aadama moo tax e, yàlla fonk na ko lool gis nga suturaal la lépp macha allah daal di laa teg ci kanam fa nga daan ñëw. te léegi yàlla fa di jàkk ja teral la foofu la te amatoo njariñ gis nga kon julli am na solo lool macha allah ci ku koy def yaa wéyli nag ku koy def parce que ñeel na ko dul def yaa wéyli ku ko dul def ku ko dul def parce que ñeel na ki ko dul def ki ko dul def nag kooku mooy tooñkat bu mag wal kaafiruuna humu zaalimuun yàlla nee julli daal ñoom ñoo ñi nga xamante ne ñoom ñoo mooy tooñ waaw kon nga gis julli. mu teg asaka asaka soo amee da ngay génne soo amul doo génne aji màkk soo amee paas da ngay dem soo ko amul mënoo dem koor da ngay woor soo wéree soo wérul doo woor mais julli wér julli wére du julli wér julli wére julli wér julli ci waxtoom macha allah kon su ko defee eh, loolu rek la ñu waxoon nañu duggaat ak yéen ci leçon yi fas yéene ko allah rabi bi ci Euh, di ko def eh, macha allah suñ ko bi macha allah eh, yàlla yàlla may ñu yendoo jàmm ku xool sa bopp xool bu baax a baax ni la yàlla bindee nga xam ne macha allah ñaar yi na yàlla lool ba mu bindee ko doomu aadama juróomi ponk lislaam moo am xolu sa cër bu ne boo ko compté juróom yaa fa baaram sax moo gën a yéemu baaraamu loxo yi mënoon a def benn loxo def juróomi baaraam mais mi ngi lay fàttali julli ñaari loxo la la defal bu ne mu def ci juróomi baaraam bu bind benn tànk def ci bi juróomi baaraam mais gis nga ñaari tànk la bind def ci juróomi baaraam mi ngi lay fàttali ko ponk lislaam di la fàttali li nga xamante ne moom mooy asalaatu di julli asalaatu di allah kon nag loolu pour rek nit bañ a fàtte ponk lislaam E, bañ a fàtte li nga xam ne mooy waxtu julli juróom yi e, kon su ko defee yi rek la amoon incha allah lu ñu ubbee akum di leen balaax bu baax a baax seen mbokk e, Amady Ndiaye imaam Amady Ndiaye moo jaaroon nag yéen rek oustaz di fàttali boppam di leen fàttali incha allah rek te jégalu lool nag waaye comme ni ma ko waxee rek bu léegi macha allah ñuy ànd ak yéen fas yéene ñu ko allah bàyyi incha allah àndee. yal na yàlla def ñu jàmm yal na yàlla may ñu yendoo jàmm ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullah